Thank you. asalaamaaleykum mbokk internetu Sénégal ñu ngi leen di nuyuwaat comme ni ñu leen doon nuyoo di leen dalalaat jàmm ci seen site senego.com tey ñu ngi dalal maître Amadou Diallo nekk avocat en même temps président Amnesty bu Sénégal ah. ñu nekk si moment bu grave actuellement si politique Sénégal muy actualité bi nga xam ni moo xew muy campagne bi ñu nekk war a jëm ci élection. pour le 24 février incha allah rabi alors euh, président lan mooy wàllu amnistie ci euh, tolluwaay bi nga xamante Sénégal toll na ci maanaam ñu jëm ci élection présidentielle surtout campagne bi ñu nekk lan mooy seen taxawaay ci foofu pour nit ñi mën a comprendre amnistie. waaw xam nga amnistie mooy euh, organisation de droits de l'homme la buy taxaw ngir euh, aar ak ak yelleef doomu aadama tamit ak ak yelleef doomu aadama suñ ko violé suñ ko naxasalee amnistie internationale day jóg dénoncé ko ñu jàpp ni amnistie internationale xaarul ba élection yooyu pour euh, artu autorité sénégalaise yi pour artu membre de la classe politique ñoom lañ ne ñu def tout pour que élection yi am si jàmm campagne am si jàmm violence bañ am ay nit ci faatu bañ am def alerte euh, dans la les deux premiers ou en tout cas de la campagne gisoon nañu quand même campagne bi se dérouler plus ou moins normalement mais depuis le 11 lu xew Tamba Niawlan euh, euh, ji parce que am na au moins deux à trois personnes yu si gaañu jàpp nañu quand Sénégal war na weesu niveau niveau boobu ay campagne électorale di am ay nit yu si gaañu j'estime que loolu dafa rafetul si démocratie mais aussi quand même c'est une violation ak doole doomu aadama parce que ñëpp xam nañu euh, le premier droit c'est le droit à la vie et aujourd'hui suñu gisee ay campagne électorale di am au-delà quand de toutes les autres libertés et tous les autres droits le fait que nit et que l'État, l'État d'abord en premier lieu qui est le garant de la protection des, des droits de l'homme, l'État doit prendre toutes ses responsabilités pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Mais également les acteurs politiques qui sont concernés au premier plan ñu muy seen bopp war nañ jël seen responsabilité woo seen militants yi pour ne leen la violence n'est pas de mise dans cette campagne électorale et ñun waa Amnesty International aussi jël nañ ay matuwaay pour justement dans ces cas-là ñu mën a documenter mun a xam lu xew par rapport à des cas de décès wala cas de violence pour mën a suba suba suba mën a engagé ay procédures contre toutes les personnes qui sont impliquées dans la commission de ces violences. mais mais avant campagne bi di commencer nee nga seen seen seen seen regard da ngeen koy teg ci loo xam ne moo jëm ci campagne mu déroulé wu normalement ak tamit lii di ak ak yelleefu doomu aadama yi avant campagne bi di commencer est-ce que genre yu mel nii maanaam violence bi nga xam ne nemmeeku nañ ko jot ngeen a waxtaan ak kilifa yi nga xam ñoo ŋànk réew mi maanaam ñi nga xam ñoo war a doxal élection bi di ñëw. waaw def nañu ay communiqué jëm nañ def ay rencontre pour discuter ak ñoom pour les sensibiliser davantage pour ñoom à leur niveau ñu mën a sensibiliser sénégalais yi militants yi def nañ ko mais malheureusement on s'est rendu compte que euh, lu ñu def noonu quand même finalement amul résultat escompté parce que am ay nit ñi ñu ñu dee mais ma jàpp ne léegi c'est pas trop tard puisque il faudrait pas que lu xew nii euh, poursuivre parce que simplement ce serait une catastrophe pour le Sénégal ñu ngi ñu ngi ci ay campagne xamu xamuñu euh, le jour du scrutin nu muy demee ensuite résultat yi su génnee quel sera le comportement de ce point de vue nous appelons tous les responsables politiques de quelque bord qu'il soit ñu woo ñu woo seen militants yi pour élection yi mu am si jàmm résultat yi tamit su amee ku gagné nga xam ne gagné na ku gagnéwul ak euh, élection yi am na ay rëq-rëq wala ay ay ay violations plutôt que de faire des manifestations violentes parce que de manifester est permis par la constitution mais c'est des manifestations violentes qui vont engendrer éventuellement des morts d'hommes Euh, mu bañ a dugg si yooyu y a des voies de droit également qui sont prévues mu jéem a jaar yooyu pour am euh, comment on appelle ça encore des décisions de justice plutôt quand même que euh, d'inviter à l'insurrection ce qui serait inacceptable mm. violence boobu sax ñun nemmeeku ba mu am ay mort d'homme comme ni nga ko waxee am ñu ñàkk seen bakkan am ay ñoo xam ne bëri nañu loolu am ci ay gaañu gaañu tey ñu gën a ràññee ne ñi nga xam ñoom ñooy candidat yi ku ci nekk danga am sa sécurité bopp boo xamante ni yaa ko wutal sa bopp muy récurité ay nit yoo xamante ni dañu dem sax ba di encagoulé wu maanaam di muur seen i kanam kenn du leen xàmmee loolu tamit lan moo ci seen seen seen euh, gis-gis ci wàllu boobu. am na si loolu yàgg na ko wax bien avant élection yi di am. ñaan nañu ko état du Sénégal war na jël ay matuwaay yi nga xamante ni candidat yëpp nga xamante ne dañuy euh, bokk si jogante électoral pour ñu mën a am sécurité yoo xam ne état bi moo leen ko jox loolu mooy éviter yu mel ni ay nit nga xamante ne amuñu droit yor gannaay amuñu droit euh, circuler avec des armes blanches parce que yëpp c'est interdit par la ñu mën a indi yu mel ni parce que comme c'est des partisans Euh, mën nañu euh, comment mën na am ay conflits c'est tout cela quand même day constitué ay affaires yi nga xamante ne c'est c'est des germes quand même de de, la violence. avant cette élection là. Mm. mais malheureusement nous n'avons pas été suivis kenn kenn dégluwuñu mais je pense qu'aujourd'hui euh, euh, ministre de l'intérieur mesure muy jël. Euh, après le décès de ces trois personnes là jox nañu dëgg moo on les encourage dans ce sens là.